Euh, mbokk yi ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne mooy suñu papa Kati nga xamante ni kenn du ko présenté ci làmb euh, père Kati tey ñu ñëw ci tiis boo xamante ni dal na ci monde làmb génn àdduna suñu papa Boy Bambara euh, nan nga ko yëgee ak ci lan la la ah, ñu ngi fekk si jàmm rek ah, bu tiis bi ñëwee waaw ah, dafay metti si ñun parce que nag suñu kilifa la man mii di wax yow moo ma jàngal gerte ko moom moo jàngal luy bras à la volée moom moo jàngal luy bras roulé moom moo tout dans en tétard tout dans en en ceinture. donc moom sama maître la moom a jàngal ba mu mun di topp di jàngale donc loolu ku mel ni kooku nga xam ne kooku ah ponk si lamb te ku bëggoon làmb ku fonkoon làmb dundam yëpp lamb la. waaw mu balaa muy kontaan mu taxaw si diggu géew ñu leen tëbaleen te moom tukulóor la woon. mais du wane comme du affaire raciste yi ñu gars yi di def si ñoo naan kii tukulóor la kii séeréer la kii kii kii kii lébu la gis nga moom ngembu ngembu ngembu ngembu lébu la mas di sol di tëbal la mas a def yëfu yëfu yëfu lébu la mas a moo tax nag mu mën li mu mën di mën a bàkku di mën a tuus di mën a bëre waaw moom nag ah, perte bu mag la si làmba ah, biñ kay jaalee nag ah, njabootum bi yëpp di ñaa ka ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xaar lan nga moom mën a jox benn anecdote boo xamante ni jot ngeen ko dund yéen ñaar à part ci sport bi. bon anecdote nag wax dëgg yàlla sama mémoire bi euh, rappelé aussi nag lu lu lu bari mais daal xam naa ne àndaan nañ fu nekk. waaw moom a jàngal comme ni ma la ko waxee sànq ñoo passé ndoo suñu diplôme d' entraîneur euh, ñoo dekk d' Afrique ñoo demandoo ni ñu koy tuddati euh, Jeux olympiques waaw xëy na anecdote bi mooy mën a wax mooy Jeux olympiques ba mu ñu xam ne bii moom la ñu àndandoo dem. ah mu dugg si salle ba vraiment mu ñëw si wala mu kontaan bégte bégte boo xam ne bi ba mu ne ma damay tëbal ma ne ko grand ma ngi dina ma war a ngir rek bul tëbal fii boo fi tëbalee dina fay toj loolu rek laa mën a fa rappelé aussi moom dal waaw